ba naal yi nga xam ne sa kilifa yu baax yi la jiitu woon naal nañu ko nga àggale ko te naal say naal àggale ko di jaare ci yow nuyoo njabootu maam Thierno Birahim gi yépp di nuyu Serigne Modou Kara mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu sëriñ ko sa Gànnaar di ñaanal sëriñ koso yàlla sunu borom dolli ci moom ngërëmam sëriñ Moodu mi nga xam ne moo nekk ci boppu njaboot gi yàlla kàttanal ko wéral ko ba naal yi nga xam ne way juróom bu baax wa naaloon na ko te yéene woon ko mu àggale lépp te ànd kook njaboot gi di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nu defal tawféex ba ñu wuy ci woote bi ci bis boo xam ne bisum ngëneel la bisum ndigal la bisum xéewal la bisu ñaan la sëriñ bi ñëwoon ca kër ga ngir yëgal nu bis bi te nu nit na bokk ci njaboot gi loolu moo taxoon nu sakk woon bu nu agsee ci waxtu wii rek nu mën a yëkkati ay kàddu ngir béréb ba ñu jamaat dafa xaw a soree waaye ndigalu sëriñ bi mënuñu ko woon a ñàkk jëfe kere ba mu ñëwee ànd ak sëriñ Cheikh Awa Balla mi dama ne ko sëriñ Xaadim mi jotoon na ma di sama wëlëre waaye woote bi rek doyoon na Mbakke moo tax defe naa sëñ Moustapha Guèye mii teel naa ko soññi teele ñëw daaru biig fanaan si fa ngir bu ñu xëyee ñëw wuy si jataay bi kilifa yi fi nekk yépp noo ngi leen di nuyu sëñ Mouhamadul Habib moom Cheikh Abdul Xuddus ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko wéral ko waaye sëriñ Sidi moom alxaaji maam Cerno xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla noo ngi nuyu Serigne Sidi bu baax di ko ñaanal waaye di ñaanal way juróom bu baax wi alxaaji maam Thierno suñu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi daje yu mel nii it solo si mooy bi ñu jàngee alxuraan ñaan daje fàttaliku ñu baax ña ngir mu nekk bind boo xam ne kenn ku ci nekk danañ ko mën a yóbbaloo te lañ ciy soññee it mooy la tax ñi àndoon ak sëriñ bi la leen mayoon lañu am rek te maam Cerno boroom Daarul yi nekkoon ca njiit lu ca ràññiku loo xam ne lu ñu cay jël ci misaal mënees nga koo jële ca moom loola it moom la sëñ Mouhamadou Awa Balla doon dundal bi mu fi jógee it njaboot gi ca loola la ñu nekkoon ba léegi ci sëriñ koso mi nuy fàttaliku tey nekk ci ab dëkkam ci njaareem yabal it làcc wam ca féete woon mbay wam ca doon bay rafet na lam ca doon jokkit jot na kon tey fàttaliku googu ñu leen di fàttaliku fàttaliku ndigal googu la muy tegtale mooy la suuxat lañ jëlee woon ci Serigne Touba mu ñëw ci sëñ Mouhamadou Awa Balla maam Thierno ñëw ci sëñ Mouhamadou Awa Balla bag si loola waxtu wu nekk dafiy nekk ndax barke la te ngërëmul yàlla la ngërëmul yàlla loolu nag waxtu wu nekk ku jóg di ko sakku te def ci yitte ju toll nii jala yàlla na kàttanale ci kàttan la nga ca tëlee nga xam ne da nga koo tëlee sunu boroom mën na la caa may loo xam ne dana la mën a jariñ ndax ngërëm dooy caaxaan mooy li nga xam ne moo gën ci àdduna gën ëllëg muy ngërëmul yàlla àjjana li muy neex neex ngërëmul yàlla ko dàq ndax ngërëmul yàlla mooy alfawzul azim loolu nag ñi àndoon ak Serigne Touba loola lañ doon fat sakku mooy sàkku ngërëmul yàlla te moom miñ ko doon sàkkoo it daf leen awale woon ca yoon wa nga xam ne ban ca jaaree jot ci ngërëmul yàlla day yomb ci ñoom te ngërëmul yàlla mooy jëfe lim digle te jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon ne yow miy sàkku ngërëmul yàlla di sàkku yi gën gu càkkiteef ci say xemmemteef li ngay bëgg ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci jëfe charian kon loolu day tegtale ne yoon woowu ci la Sëriñ Tuubaa xàlloon doon ci awale waaye it jàmbaar ju mag ja nga xam ne moo féete sëriñ bi ci lépp muy léppam muy maam na borom daaru mi nga xam ne doy na rek li sëriñ Muntaxa di wax ne maam Cerno moom lañu sëñ bi joxañ nga xam ne doy na sëkk royteef doy na sëkk it ab sëriñ doy na sëkk wéeruwaay loola moo ko may màndarga yu bari yoo xam ne boo ko tuddee fekk ko ca kon fi jamono tollu tey di nafaraat dund gu mel ni dundu maam Cerno waaye doomam ju baax jëm fi bàyyi woon muy sëñ Mouhamadou Awa la dana tax taalibe bi xam fi muy teg tànkam waaye it ñi nga xam ne dañ leen a jox ay responsabilité it te yàlla teg leen ko ñooñe it bu ñu royee ca ñooñe seen doxin wa dana tax tey ñu am réussir bi nga xam ne moom la mag ñoo ñu amoon borom daaru bi ñuy tàmbalee nga xam ne càkkutee fukk wala ñaan gu nangu sëriñ Tuubaa la gu ñaan boroomam waaye ba mu bokkee moom lépp dafa jaay la mu bokk ak moom xam li tax a jariñu sëriñ Tuubaa muy li ko yàlla jox te muy ngëneelul àdduna ak alaaxira ñu jaay lañ bokkoon ak moom jënde ko ak taali bi loola mayoon maam no sëriñ Tuubaa mën a di yaxal ci xelimaam di wax ne mooy ki mës la tàggoog man waaye mës la juyoog man loola doyoon na sëkk ci bu borom daaru amatutoon benn seere wala benn màndarga wala benn garaat ci Serigne Touba doy na sëkk ab yóbbal mooy mës la juyoog man waaye mës la tàggoog man du ci waxtu ndawam waaye du ci waxtu magam baat bii ñuy tudde murit saadix tam nekk lu jafe lool bari ay turandoo te néew ay jëmm li sëriñ bay jaxati di wax ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne murit dëgg laa te doo ab murit maam Cerno sëriñ Tuubaa ko seereel ak murit saadiqam ayyuhal muridu saadiq al muridul wafi ba egg ci it bu ne nit bëgg na sëñ Touba wala sa ñooñ waxal la ne bëgg nga sëñ Touba waaye sëñ Touba moom moo bindal boppam ne cofeel bu doon paaka maam Cerno lañ ci rendi kon loolu wane na ne sëriñ bee ko seereel na ko yow yaa ma bëgg ayyuhal masboox bi xobbi naa sëriñ bee ko gërëm it ngërëm loo xam ne dane ko ŋàññi di ca topp mukk te yemuma ca nag waaye dama lay sàkkul ci yàlla lu la sa kem yépp di ñewe àdduna ak alaxira kon loolu doyoon na ci màndarga yoo xam ne lu ci nekk ay bataaxal la ay mbind la yu sëriñ Tuubaa bind bàyyi ko fi ne ko saa yu sa bët tegee ci mbind mi nanga xam ne ki ko bind gërëm na la ba faw te duutu la ŋàññi waaye yemu ca nag dalay sàkkul ci yàlla lu la sa kem yépp di ñeewe moo tax maam Cerno mënta ñàkk a jiitu mënta ñàkk raw mu ne su ko ñàkk ñee ndax sëñ Tuubaa ne ko may sàkku ci yàlla lu la say kem di ñeewe mu nekk koo xam ne it dafa boole woon sariya ju mat sëkk te mooy jaamu yàlla bëgg sëñ Tuubaa di roy sëriñ Tuubaa ci jaamu yàlla def naa kenn ci bokk yi bindoon na lu mel noonu di ko ko tagge baayaxta xayral qadiimi waqtadayta bihi fil qawl wal fi'li xataa usta bushraahu jaayante nga ak Sëriñ Tuubaa waaye danga ko roy ca na muy waxe ak na muy jëfe nga xam ne jëfiinu Sëriñ Tuubaa mooy jëfiinu maam Cerno waxiinu Sëriñ Tuubaa mooy waxiinu maam Cerno mooy ni Sëriñ Tuubaa def ci yonent bi sallallaahu alayhi na ko lay laysat li al yawma xaajatun uammiluha si waxtifaayika xafal qalbi wal badan aw ma genn bëgg lu may di la roy ci sama xol di la roy ci sama jëm noonu la maam Cerno defoon ci Sëriñ xam ne àndaar joo ko charia da koy matal waaye boo ko nattee ci xaqiiqa da koy matal nekk jullit bu ma sëkk ab jullit nekk aji gëm nekk moxsin waaye nekk murid saadiq mandarga yi tegtale ak murid yépp boo ca làmbee borom daaru fekk ko ca ba ca jëkk mooy bëgg sab sëriñ tamit dëgg sëriñ Touba moo ne ko yow de mbëggeel bu doon paaka yow lañ ci rendi kon kenn jotu ko ci bëgg sëriñ Touba am na ko koy kañ ba yàgg mu ne ko fama fi xobbi ahmadu cheikhi man yu daaniik maanaam amul bëgg sëñ Touba kun la ciy dendale yow maam Thierno nga xam ne kenn du bu ñuy lim ñu bëgg sëñ Touba yow kenn du la boole ci catégorie diw ngay langal wala diw ngay langal amoo cim kam yaa raw ñëpp ci bëgg sëriñ Touba loolu nag boo xamee lan mooy tekki bëgg sëriñ bi sëñ Abdourahmane Mbakke Cheikh yàlla na yàlla dolli ba mu ni màndargaal lan mooy bëgg sëñ Tuuba dafa wax ne xusnal ixtifa li athaari alqadimi dalala in kunna muhibbina li ñuy tegtal ne sunu bëgg sëñ Tuuba wér na mooy roy gi ni roy jeexintali sëriñ bi bëgg sëñ bi mu tegewul ci rek bëgg naa ko sëñ bi nangam jaral na ma waaye da koy roy ci ay jeexintal la muy digle nga ne ca lam tere nga bàyyi ko te maam Cerno mës sa ju yoog ndigalu sëriñ Tuuba kon loolu wane na ak bëggam sëriñ Tuuba ba ca toppit mooy imsaalu amri ay su warat foo déggee ndigal jóg sëriñ Touba mës ta digal maam Cerno lu mu jëful borom daaru waxal na boppam ne benn màndarga laa am bi benn shaar benn symbole mooy lan lu sëñ Touba bëgg dana am man Cerno lu ma sant danaa ko def kon loolu mooy wax jëfe ndigal moom mooy te xoolal dangay xool ay diggante yu xat yoo xam ne ni ci borom daaru jëfe ndigalu sëriñ Touba benn bi mooy keroog bi ñu ko convoqué Ndar te sëriñ bi amagul digal te yebal maam Cerno booba sëriñ Touba boo demee ci ilhamu nee na jamono jooju am na ñooñu bu ñu gisee ab nasaraan dañuy jàpp ne malaakam yàlla lañ gis te teewul ba mu yónnee borom daaru mu dem ndar gis nga nam taxawee ci kanam gouverneur ci ak mat aku fit ak xam-xam ak teggin ba ba la ko sëriñ bi yónni woon lépp mu doxee loolu nam mate la ca toppit mooy bi sëñ bi dem ci géej gi te batale ko batale ko kere ba muy tàggatoo te dénk ko ñetti baat rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom ba mu demee bay bind lettre maam moo Jaara borom saamit it ba mu ne na ngeen na ngeen ko fonk te topp ko moom borom saam te wormaal ko waaye moom it da leen yërëm lam ci teg mooy fal yakul ayal ma Ibrahima fi Touba in amkana wa ila fi ay makan insha allah jaboot gi nag dañ nekk ak na tuubaa bu jàppandee bu Touba jàppandiwul nag béréb bu soob yàlla moo tax kere bi ko góor góornoo ne da ngay maasale daara ji tasaare ko te yewi nit ñi dégg la ko borom dër tontu gi moom mën naa am ndax sëñ bi ma ko digaloon na ko woon bu tuubaa jàppandee bu jàppandiwut waaye nag jëmmi tasaare daara ji du am mukk lu dul da aw sama kaw ba jàll kon loolu wone na ne booy seet murit bu mu dëggal dëgg mooy borom darul maxti bi sëñ bi demee ci géej gi gis nga ni mu taxawee mooy sëriñ bi moo ko gënal boppam gënal ko léppam keroog bi njabootu sëriñ Tuubaa gi tawatee te sëñ Tuubaa doon wax ne gistu ba al ankabut mooy ahasiba nas an yutrakuu an yaqulu amanna hum la yuftanun ba ci ilaaxil aaya te njabootam gi tawatoon gis nga ne borom daaru def ñaan yàlla bu fekkee ne njabootu sëriñ bi daa nar a ñëw mu di leen ko laaxal mu ñàkk sëñ mu daaw balla ñu nga xam ne tey moo sañcoon dëkk bi waaye ñàkk way jëlum soxna Faat Isa waaye jëmmi boppam sax na ko wuute kon sëriñ bee ko gën lépp li sëñ Tuubaa defoon ci yonent bi na juttalahul yow ma bi ruux yi wal badan wa waladi wa walidayya fi la xanan te li ci yéeme it mooy na bàyyi xel ne lu maam Cerno def ci sëñ boo demee gis ko sëñ Tuubaa bind def ko ci rasulullah ndax da ko joxoog ruuxam jox ko ruuxi doomam jox koy way juróom sëñ Tuubaa it bind loolu ci yonent juttulahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam jox naa rasulaay sama ruux jox ko samay doom jox ko sama jëmm jox ko samay way jur borom dër noonu la def na sëñ mu daaw balla dem wala sama way jur dem wala man ma dem ci diggante boo xam ne bu bu bu bu xat la bu yéeme la loola wane na ak muritam ba ca mooy tarkul i'tiraad bàyyi diingat borom dër mu sox diit moo ko may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 lépp feeraay lay doon mooy bagage yu ñu defaroon ba nopp mu yàqu ñu toggaat maanaam ni bagage yi amee ay foo la nit ñi amee foo noonu la mel fi ne fi ne defaree li muy jafe-jafe li jafe defaree di jafe man laa defaree ko gën a jafe fen dañoo xam am na kilifa koo xam ne daa am taalibe mi ma sa toog ne sëñ diw de moom danaan seexale danaan defare danaan defare waaye diw nangam sëñ bi jekki-jekki dajale leen ne leen yéen ñii ku ci man a waat ne mosoo mooy yàlla ma defaral léegi ñu ne ko ñu tàmbali di jabat na ko de kuy defare kay da ngay defare rek teg ko ci charte moom jëru kon xam nga kee moom la war a raxas ca moom na mu toll rek bale su koo raxas ba koy defar nu mel moo tax ixtiraat dañuy wax ne juróom benn yu yàq ak murit la te ku ne gis na lim mu gën la loo maam mucc na ci yëpp mooy sëñ bi daa na sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bi murit laa waaye sëñ bi ak cëpp loolu day yàq ak murit te léegi bu sëñ bi noppee ñëpp maase ci ne ko wax daal nga war a def sëñ bi wax ñu ne ko da ngaa waroon noppi gis ko ba ci jamono ji ku noppi ñu ne war ngaa wax ku wax ñu ne war na noppi loo digle te neexu la nga ne sëñ bi daal murit laa waaye lu ma enragé wut nangam ixtiraat day yàq ak taalibe moo tax sëñ Tuubaa ne wakkun la da may wakkun la da cheikh kal mayit xat wudia bay na yedee xaasil tantafia ab murit dëgg balaa yegg ci dayoo murit day mel ni néew buñ teg ci kanam ab sëriñam ab sangkatam ni mu lay wëlbatee ak di la bomb ak di làmb ci say cër fu ne na nga nee teg sëñ Tuubaa ne ne ngaa egg ci dayoo murit faw nga mel noonu faw nga bàyyee sa bopp noonu ba ca topp nag mooy salabul ixtiyaar mooy bàyyee ko sa tànn looloo tax borom dëru dafa jox boppam sëñ Tuba mbooleem lu mu jur tàmbali Cheikh Mamadou Hawa Balla lu ci fekkee sëñ Tuba lépp njaboot gu moom sëriñ Tuba la ko jox te loolu doxut digganteem ak jaamu yàlla gu mat nga xam ne juróom ñetti fukki yu manqué yi mu dund ñaari yoon la ma tiim ba mu amee ndox fay na ko mës ta wàcc yoonu charia mës ta juyoog lenn loo xam ne diine lislaam la la yàlla bëgg ci la nekk ci di ko jaamu waaye ni sëñ Tuba bëgg ku ni melit noonu la maam Cerno mel moo tax ba ko kenn ci bokk yi tagg loolu la ko wax dane ko hadayta sadaqta xaqaqta sharaqta boole nga xaqiqa boole nga sariha yu mat sëkk yow maam Cerno loola it moo tax jëfam yu rëy yi di ràññiku ci àdduna Cheikh Ibrahim ci taxawaay bu rëy mën a muñ nekk koo xam ne lu mbir rëy rëy bu dikkee ak dal da cay wone nga xam ne noonu ko Abdourahman al Alawi waxe ca nga mu doon taggee borom daaru wax na ko si nee na lépp lu muy bëgg fi kulli ma kaana yuriduhu te anna wa bi te anni naa la mat mën tamanna lépp lu ma sa bëgg ci ndànk la koy def waaye bu ko defee it da koy def ci boole ko ku dal nekkoon citoyen modèle nekk murit modèle maam Thierno tey jii boo xoolee ñi jóge Daaru Musi jëm si jëm si njareem yabal tey ñëw jëm wuti belal ñëw wuti Daarul naan jàpp Mbakki Kajoor ñëw wuti Touba wuti daru Rahman àll bu toll nii bépp ki ko gor ci jamono boo xam ne ay moyens amut nga gor ko ci aw fit gor ko ci njàmbaar gor ko ci ndigalu Serigne Touba boole liggéey daqoon na liggéey ñëpp dàqoon na sàmm ñëpp dàqoon na bay ñëpp dàqoon jàng ñëpp dàqoon na jaamu yàlla ñëpp maanaam doone maam Thierno jaamu yàlla gi daa dox digganteem ak liggéey bi doone liggéey bi daa dox digganteem ak jaamu yàlla gi boo ko nattee ci jàmbaar ci jëf amul kum dendal tak njàmbaaram Serigne Touba ko seere kere ba mu wax sëñ Modou Habib ni ko Thierno da yéem na ma ndax njàmbaar gi daa wàcc ba ci doom yi defe naa loolu rogalaat na ba ci sët yi nee naa woon am yambar sax du juddoo darul moxti koo gis muy yox-yoxal rek mën nay tudd borom daru waaye ragal moom bokkul ci maam Thierno te xamoo ne ragal ñàkk gëm yàlla fi ne koo gis mu ragal gëmul yàlla ndax boo gëmee yàlla da xam ne am na foo duru mi na raxmaani kenn mënta lor kenn mënta jëriñ ku dul yàlla kon boo ragalee rek sa gëm yàlla dëgëroo fi ne jëmmi ragal du fiitu ñu naan xa xataraayu ndax suñ Tuubaa nee na la mu waxoon kenn ci mag ñi dana ko liggéey sa alal ba mu lew la nga mën koo joxe ci yoonu yàlla moo di njàmbaar waaye xuloo xeex moom lu wute rek la lu wute rek la xuloo xeex sëñ Abdou Karim sëñ Aliou la ko waxoon fekk dana ko demal joxal ma naar yi nangam mu jox ko ko ba noppi waññaat beneen lim jox leen mu ne ko xëgg sa liggéey sa alal ba mu lew la nga mën koo joxe te yàlla tax na ko loolu moo di njàmbaar waaye xuloo xeex moom lu wute dong la waaye aw fit boo ko déggee mu mooy ak njàmbaar waaye mooy gëm yàlla noonu la borom daaru meloon nga xam ne képp kum jamono teel dem nga ba xam loola ci moom ci melokaan yu ko yàlla sàkk sëñ maam na way juru sëñ bi nettali na ma keroog bis sëñ Cheikh Awa di jënd oto nga xam ne juróomi junni la ko jëmewoon ci jamono boobu bàyyi Moustapha Diakhaté mii nekkoon ci pèlerinage bi moo ko doon interprété noonu la ko maam Thierno nettali woon ci Darou Manane waaye nee na ba mu koy laaj ne ko ndax oto bi mu jënd jamono boobu nit dana jënd oto joxe dara di xaar Cheikh ba la jënd ko mu mat tubaab bi ne ko ndax yow Cheikh Antaay sa baay mu ne ko mooy sama baay waaye juruma mu ne ko ndax kon sëñ tubaay sa baay mu ne ko mooy sama baay waaye juruma mu ne ko kuy sa baay mu ne ko maam cerno nee bi mu ne ko cerno tubaab bee ne ku jub ka nga xam ne moom bànnar googu tubaab bee ko seereel boobu ne ko ku jub ka nga xam ne tubaab bi sax seereel nañ jub gim jub moom mat bi nga xam ne moom la boole woon boole nu ko sàmm boole nu ko liggéey boole nu ko jëf-jëf joo xam ne dana ko jariñ ci biir waaye jëf joo xam ne dana ko jariñ ci biti waaye loolu lépp la muy rëy rëy nga xam ne sëñ mu daaw la bi ko sëñ tuubaa bi ko maam Thierno joxee ndigalul mu dem rëbbali Serigne Touba na ko defal naa ko lépp ba mu desee rëbbal ko tam rëbbali woon ko ci àllub jolof bi te dem yët ko Serigne Touba ci njeereem tam jëloon naat yooyu nañ ko séddalee ci njeereem ak nam xewe waaye la ma ci jubloo net li mooy ba ko sëñ Touba di wax borom box sëñ Modou Awa Balla di ko san dana ko soo bàyyi Thierno de nit ñi dañuy wut àdduna Thierno di wut yàlla ba am na ko nit ñi àdduna muy wut yàlla ba am na ko noonu la meloon ci nungoo liggéey daana wax ne ku dul liggéey du am dara ko mu dara du toog ku toogut du jaamu yàlla ku jaamul yàlla dem àjjana loolu la boroom dara dana wax te mënoon na jàngale it nga xam ne ku ma sa ñëw fi moom am yitte dana la teg ci yoon wi nga war a jaar ba mën a jariñoo mbir yooyee ba loola ba loola lépp mat moom Cheikh Ibrahim loolu moo tax Cheikh Ibrahim ma Almachari nee na bu jamono yu wañ si ñëwee muy jamono yu tar jamono yu dëgër bu ñëwee nee na gaynde guy bëngéer maam noo koy raw day rusloo gaynde sax nee na gaynde gu goo xam ne dafa dafa ŋar ak na muy mel jamono ba muy mel melokaan woowu bu jamonoy jëfan jëflante ñëwee jamonoy tàngoor ñëw maam Cerno koy raw waaye bu jamonoy tap ñëwee joxe sa alal nag nee na asamaan suy xottiku waame wuy xottiku la muy bari bari maam noo koy raw ci ak tap nee na noonu la meloon Cheikh Ibrahima Diop neen du dox mukk ci ay nen doo dajeeg mu mukk fa lasta talqaahu illa dafian darara aw taaliyan suwara aw qaadiyan wa tara foo ko fekk ma ngay jàng alxuraan wala ma ngay dundal sunna wala ma ngay faj aajo wala ma ngay faj ku wopp wala ma ngay wax ay xekkam nee na loolu rek mooy melokaanu borom daarul maxti kon boo ko nattee ci nattukaay yi ngay natte sëñ Tuubaa bëkku ni mel teg ko ci kanam noonu la mel ndax mënoon naa jaamu yàlla mën a julli ba jéem ami rëdd te du fi bàyyi lenn lu liggéey te te saa yoo déggee ak ak yuuxu ñu ne ay fu nu jëm du ko daq jullee tax ñu di ko wax waaye amal njariñ nit ñaa ko tax ñu di ko wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alxalqu iyalu la ahabuhum ilayya anfahum ilallah njabootu mbindeefi mbindeefi yàlla ki ci gënal yàlla nag mooy ki leen gën a jëriñ borom daru nag jëriñ na mbindeefi ci lépp xam-xam it moo ci rawoon ñëpp Cheikh Ibrahima Diop nee na booy lim boroom xam-xam yi bu ci boolee Mam Thierno xoolal ñim jàngal ko jàngal Cheikh Moudou Moustapha jàngal Serigne Fadilou jàngal sëñ moo roqee busu jàngal sëñ Makhtar Bintaloo jàngal sëñ ma bañ jàngal sëñ ma Samba Mbacke ñi maam Thierno jàngal képp ñooy kaa ngi yoon wi ak fóore yi borom xam-xam yi yéeme maam Thierno leen jàngal loolu kon booy natt xam-xam doo gis ku mel ni maam Thierno ci ci ci ci bari xam-xam te moom sëñ Tuubaa ko jàngal jàngal gu yéem ñëpp koo xam ne tax na melokaan wu nekk nam mel mu dajale kon loolu day wane ni maam Thierno mate waaye ba mu sañcee dëkkam yii jëf-jëfam ju mel nii nga xam ne ba mu amee ndigalu sañc Daarul Muxti sañc ko Sëriñ Tuubaa nekk njeeree mit ay addiyeem ak di ziyaare di fekk Serigne Touba ci melokaan wu mat wu ne mësta jëf jenn jëf Serigne Touba ne ko lii bëggewu ma ko woon nii mësta am am na bi sëñ Basiru ant sëñ Basiru Abdou Khoudous dama nuyoo leeg sëñ Abbas foofu ci kër borom daaru gi dama nuyoo leeg moom di wax ba yàgg mu muy nettali muy nettali ci kanam sëñ Abbas ñu toogoon ci kanam Serigne Touba day wax naan nangam di tudd rek di tudd ba ak si ci borom daaru mel ni koy wax ba ñexee ba yeggal baat bi Serigne Touba duggee dana cerno nu mel nu na bëgg a xebete sëñ bi nee na mën a la ko waaye nawe mën a mës a jëfit lu sëñ Tuubaa loolu tax maam njaareem gi dañoo dëkkoon ba wër kër Serigne Touba gi yëpp amu ci mbedd amu dara boroom daaru moo ñëw xàll mbedd yi yenn kër yi ñu dajj ko yóbbu fële mbedd yi ne fayax ba sëñ Touba génnee seen pénc mi ne fayax mbedd yi leer nañ mu ne xanaa lii cerno ñu ne waaw mu ne tan bihul xafilin noonu la meloon ci doxin digganteem ak Serigne bi noonu la meloon ci bëgg Serigne gis ngeen ne bokk na ci lu wóor loo xam te déggaat na alaaji maam mi nettali ko te mooy kalaame gi nga xam ne ñi kalaame woon Serigne Touba ci tubaab bi am na ci koog maam Thierno dafa ñaanoon ne fu ma ko tegee bët yàlla na faatu kere bi mu ñëwee njaareem Serigne Touba dafa wax borom daaru sant maam Thierno mu génn jaaree ci ginnaaw passé Sénégal bi pour wuti daaru waaye bu mu gisantee moom na xam ne lim ñaan boromam faaw dana ko def. looloo tax it mënta wax ci Serigne Touba dara ndax waxande la wu Serigne Touba denc ay mbóot ak i bati tàmbaleeg Serigne Touba ci fu nekk. dafa am bis may def émission fi ci RTS sëñ Abdou Samad moom sëñ Chang yi bu woote ci wax ne maam Thierno dafa am bis li tax muy yéeme te ñàkk moroom dafa am naar yu nekkoon ca gànnaar bind ay lettre Serigne Serigne Touba maam sàkku ci seen borom dugg xalwa sàkku ci seen borom ne dañoo bëgg a gis Serigne tuba suñ borom jox leen digal ñu war a dem Njaareem gis ci Amadou Bamba bi ñuy ñëwee Njaareem luy Serigne Touba waaye niñ ko bëggee amee ko ndax Serigne bi amutu féex xat gi jàpp leen bañ delloo gànnaar nag bind ab lettre seen Touba. na ko nun de dañoo bokk ci wàlli yàlla yi jafe ci jamono ñoo sàkk woon suñ borom ngir gis la ñëw nañ njëreem nag gis nañ la waaye dañoo mën agsi ci yow waaye dañ laa bëgg a xàmmi ku ngir nga xam ñu fañ la xamee na ko buñ masaa nekk ci pays suñu borom yi danga ñuy romb di jàll buñ masaa nekk ci pays suñu borom yi da nga ñuy di jàll na ko am na bis nag am xale bu jàpp sa mbubb di la sant sa jàll métti wunu waaye nun ñii ñoo la dogale woon keroog naar bi na ko mën mii bokk naa ci ña la dogale woon jàpp sa mbubb na la sax jàll métti ñu waaye kii nga àndal ko mu nee na ba may tontu damaa tontu ak ñëññite ak fiq bu moom kii Cerno Ibra Faty te xadra ba moom borom xam-xam yi wax yépp nee na xëccoo mën naa waaye bu ñu fa dajee sëñ Tuubaa képpay taxaw sëñ Tuubaa képpay wax ku moom toogee ni ku julli ngay toog xatiibu rijaalullah fi xadarati liqa fa lam yakun qaailun thamma qaaimun bada baynahum shamsan wa hum kawaakibu wa nuuru nujuumi layli bi shamsi aafilu ku ne mën ngay fengat ci àdduna waaye boo dajee ak sëñ Tuubaa ci pays borom bi biddiw ngay doon sëñ Tuubaa doonub jant fa lil kulli minhum rutbatun wa makaanatu aalim walakin fuxtahum bil maziya ñoom ñëpp a baax ñoom ñëpp ami daraja waaye yaa leen raw li annaka asfaahum wa aksarum tuqaa wa axfaahum turan bi masabi sunnatin wa aksarum ilman wa xilman wa xikma wa ajrum duran bi kulli fadilati wa tawallahum baaxan wa ajsalum nada wa arafum billahi min duni mirya sëñ Tuubaa moom de su ko ci dara ba fi sëriñ bi jógee jëf yu mat yi mat ak taxawaay bu rëy bi maam Cerno taxaw ci àdduna ñëpp teg ci seen bat ba tey jii boo ko tuddee ci àdduna ñëpp xam kam doon ci booy wut murit booy wut ab jullit booy wut nangam booy wut ab liggéeykat booy wut jëfkat tey jii amul ci kenn ku àdduna ko di leen taxaw ak di leen dimbali ba fi jógee 43 it ki mu fi bàyyi woon di Serigne Modaw Balla Ndaayaan loolu mooy ki mat a wuutoo te wuutoo te wuutu ku mat a wuutu moom de génn ci fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaat fa sawfa yalqawna ghayya jii jëlee sa micro dem di laaj dara Darou Mouhty tàmbalee ci sëñ Bassirou Anta Niang ba fa nekk yàlla yàlla guddal fanam te wéral boo demoon laaj ko na ko kan mooy Serigne Modou Awa Balla moom moo la cay wax loo xam ne yow da nga xam kan mooy Serigne Modou Awa Balla boo fa génne dem ci Serigne duggee ci kër borom Daaru Muxti yépp boo leen laajee dañuy wax ne te loolu sëñ Modou Awa Balla li tax taaw bu mat taaw mat la mu mat a doon seeree loolu sëñ ba sëñ Cheikh Abdou Baye Cheikh la ma ko ne bi sëñ borom Daaru di dénkaat Baye Cheikh Khady sëñ Modou Awa Balla ba mu ko koy dénkaat dana ko kii ay xam laa laaj na ko nag bu ñuy wax taaw mooy wuutu baay taaw bu baax baax tax waaye kon xam nga ne sëñ mu daw balla taaw bu muutu baay la taaw bu mat baay la bul waxagun baatin sëñ mu daw balla ay waxal jomam wax ngorom ndax baatin moom léegi bari na ci réew bari na ci àdduna bi ci ñu koy wax waaye jom ak ngor mooy li gën a jafe ci àdduna tu ko amu du egg wuutu maam Cerno 43 1943 borom dëru génn àdduna nga wuutu ko xoola fi jamono tolloon ban crise la dajeel fu àdduna tolloon daaru muxti gi maanaam waxuma la sanc yi waaye li tàmbalee ci gendarmerie bi jàpp ci kër borom daaru gi bu sëñ mu daaw balla fexe woon ba géntul képp laayeen amul morom waaye xoolal ni décentralisé boo ñëwee fii ci njaayeen yar xoolal ni ngay rombe dar madina romb dëkk yi ram fenn daaru rahman fu ne mu décentralisé nga xam ne tey jii kenn kook sëñ mu daaw balla ku am foo tumuranke ci foo nekk borom daaru ku tumuranke ci foo nekk amut ci melokaan bi jëkk ci lool taxawalal borom daaru juma ci jamono boo xam ne bu jafe la waaye seere sëriñ fallu sa daa doyoon sëkk ba muy taxawal jumaa ji te am ku wax sëriñ fallu na ko sëñ Moodu li mu ngi taxawal bëgg a taxawal juma waaye xam naa yorut xaalis lu mu ko waxoon eh, juboo naag boromam bu yorut xaalis it juboo naag boromam te moom ndigal la ci amoon te jubóog boromam gi leer na ci melokaan woowu nekk lu mat sëkk waaye sëñ Moodu aw balla it fii ne tey bu fekkoon ne maam Cerno doonu loon baayam tam am cër yii mu am ci tuba Touba ab seexu boppam lay doon bu beru boo xam ne boo ko tuddee da koy tudd ndax ngërëm lu nit di ràngoo Serigne Touba ràngoo na moom laa déggagun ko Serigne Touba ne ko ñot di jañ ak ñot jañ maa la ko maa la koy defal maa lay jañal maa lay ñot di loolu nag ku ko Serigne Touba defal te Serigne Touba moom nee na moom lu mu bëgg yàlla ko koy jañal isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu bil ilahi salaba mu boole melokaan wu mat woowee fas yéene taxawee li fi maam Cerno bàyyi woon ba tey dëkk bii ñu nekk tey di njeeleem njabal doy na ci misaal kon loolu li muy tegtale rek mooy ni ko yàlla maye cër bu rëy maye ko barkeel ci li tudd ci kàddoom yàlla def tey jii mbooleem ku sëñ mu daaw la masa joxañ na la nangam loolu teg nga ci sa lu masa junj teg nga ci sa bët lu masa waxi nit ki teg na ci bëtam loolu nag wane na ko jëfam ju moo ko may melokaan woowu waaye fexe ba ni ko njabootu borom daaru gi bëgge ñëpp bëgge ko ni jëf muy mat rek mokk ko moo ko mayam jubóog ñëpp man ak ñëpp bàyyee ñëpp ak la ñu yor moom sëñ mu daaw ball te am mu bokkoog ñëpp da taxoon mu mat kilifa dafa am ñeent yu yàq kilifa it sëñ mu daaw ball muccoon na ci kilifa am na ñeent loolu benn tubaab moo ko mas a wax sëñ Malick Basin si na ko luy yàq kilifa mu ne ko ñeent mu ne ko ñeent yi yàq kilifa mooy loo xam wax ko day yàq kilifa luñ la wax nga wax ko day yàq kilifa loo mer xul ko day yàq kilifa loo am jagoo ko day yàq kilifa loo xam wax ko kilifa gu koy def adduna mën naa tukki waaye luñ la wax nga wax ko lu nit ñëw déy la bu génnee boo gisee keneen déy ko loolu baaxul loo mer xul ko lu la naqari rek nga kaas ko baaxut ci kilifa la ca yées nag mooy loo am jagoo bu la yent yi dalee nag jikkoy mbëtt ngay yor kilifa mbëtt boo ko jiitoo mu ne samay gunóor lay for mooy foo dem rek mu ne damay xañ sama nit ak day xëccoog man nga warmaal ko topp ci ginnaaw di tenk nag mu ne samay lay lay lang ci lay joggi waxtu nekk nga ne naa làng moom mu ne damaa def moroom nga ne naa toog ca kër ga mu ne jigéen ñee tax ñëw kooku kooku kilifa it ku ko yàlla dénk nattu na la ndax doo mucc kon ku yàlla may nag kilifa gu baax koo xam ne loo am mu bàyyee la ko te lu mu am bokk yow looloo waral tey amul fenn fooy tudd ndaayaan mu da aw balla du ab taalibe du doom du rakk te ab xolom tooyit ci yëg na sëñ mu da aw balla meloon te loolu feeñ ci njabootu boppam gi njabootu ko génn sa kër jox sa rakk bàyyee ko tey sëñ abi ba ngi nii ku ne gis na loolu mu ci defoon kon mel na ni kilifa gu mat kilifa mooy loolu alhamdulilah it nag dëkk bii nu nekk tey di njareem yabal euh, sëñ koso gànnaar bi fi nekkoon it loola rek la taxawee man de miinoon naa ko ci Cheikh Mamadou Mokhtar bi ma koy mujj gis ci màggalu sëñ Modou Mokhtar laa ko laa ko gis moom sëñ Koso mu sol garam bu mel ni bii Abdou Seen sol nga xam ne couleur bi noonu la mel mu toog ci bunt mu génne ci biir néeg bi fekk cérémonie bi jeex mu toog ci bunt bi am yu yu doon toppatoo di ko indi ngir mu war ko yóbbale waaye nit ku dal nit ku yiw ku laabiir maanaam ak laabiiram yeggoon na ci lim lim lim tuur ay xéewal ci sëñ Modou Mokhtar ngir ñeewante ko kenn xalaatoon sax ne mooy mooy mooy mooy jiitu Cheikh Mahmadul Mokhtar moom sëñ ko Koso ci bari bëri yërmandeem ci yiiwam ci baaxam ci dalam de géeju xam-xam boo xam ne la koy xamee mooy alxuraan jamay jàng ak jëfin yamiy jëf rek ndax mandara ko am noonu koy xamee ci doxinam ma ne lool ak i bokkam te déggoog ñoom loolu nag mooy jikko ju rafet ju nit di am la sëñ Modou Awa Balla daale woon ci dëkk bi yàlla na ko ci yàlla defal ab dëkk nag bu dee boo fa fajee aajo wala nga fas sa aajo te ànd ak pësiyëf yàlla mën la koo nangul loolu fagguteef la goo xam ne du jeex kon nag jëf jii te jii wane ne melokaan woo xam ne kenn du dox ci àdduna sëñ sëñ Koso Gànnaar marqué na ay apprentam ci ci ci yoonu murit lañ la la sëñ bu tagge woon Sëriñ Cheikh Awa la na ko diine jëmu la ak bokk jëmu la yoonu jëmu la waaye diine jëmul sëñ Koso Gànnaar waaye ak bokk it jëmu ko ndax defe naa tey boo toogee xool relation yi mu am digganteem ak yoon wi ak xam ak bokk bi xam ne bokk jëmu ko waaye yoon wit yoon wit yoon wit jëmu ko la la ab murit baaxoo ci nangoo jëf te tënku ci ndigal loolee ca la sëriñ ko sa nekkoon kon nag yàlla yàlla yàggal fi jaboot gi sëñ Modou noo ngi sant bu baax di jéggulu bu baax danoo waxoon ne dana ñëw yëkkati kàddu yi li tax ñu koy leerale mooy bañ tàmbalee ca maam Thierno ba ci sëñ Modou Awa Balla ba ci sëriñ koso gànnaar loo ca nettali ak taali bi rek ca ngay dell kon ak taali de su ko kooj bu nu dara fab bi adduna bi nag yëngu na azamat yi bari ne crise yi bari na lool ak taali bi mooy wàccaay yi nga xam ne du ràpp du furi mooy liy jariñ nit ci àdduna mooy li koy jariñ ci àlaxira ak taali bi aka yëpp aka dig taali bi moo ci gën aka yëpp aka dig taali bi moo ci gën borom daaru nag daana wax ne àdduna ay rëdd la fexeel ba bu la kenn gën a juble fexe ba ku fi bàyyi ko bu ñu la ak a baax ak a ngeme addiyee santaane sëriñ bi nangam nangam waaye léegi ak teel bi dañ ko moderniser te wallaahi cay ku ci am sëriñ bu mat sëriñ ba xam ko ba laal ba ba mus ba mu wax la te nga jëf ko da xam ne caaxaan caaxaan du caaxaan man dama ko naan sëñ Moustapha ñii dama dama ko wax naa ko sëñ Xalil sëñ Maxtaar ma ne ko ab sëriñ moom sëñ Moodoo tax këfatuma ci gëm ko ba gëm sëriñ yëpp far te bu njëkk dama koo bëgg ndax silvise géeg ni mel waaye ma lu ñuy gëmëb sëriñ waaye ba ma tàggalee li nit gën a ragal ci àdduna moo di ñàkk nga xam ne maa xam saa bopp ba ma koy wax xam fi ma toll bés ni ki tey génn nga ci way ñàkk yi loolu sëñ bi nga xam ne yow bi mu la koy wax waxuma la ne ci biir ngay ñàkk yi mais fédération bi ko jiite yaay seen président mu ne ma bés ni ki tey génn nga ci way ñàkk démb la ñuy génnewaat beneen vidéo ma ne daaru kon man am naa ngërëmu sëñ bi te xaw ma ko woon sax nga xam ne mujjam dafa maa dimbale del indi tabaski del togg añ del def nangam man loolu ndake damay dimbale ba bis nag mu ñëw rek na ma bis ni ki tey tàggoo génn nga ci way ñàkk yi man nag xam naa ba ma ko waxee ak fi ma toll ak li ma xam tey ak li ma man ak li ma mënul loolu kon ab sëriñ de su ko kaf ab sëriñ du moroom ab sëriñ du xarit ab sëriñ du mbokk ab sëriñ du dendandoo dama laa jox sama bopp àdduna ak alaaxira ay caaxaan du ko lal tay te nit bu àndeek nit ba gisatoo ko ka fa nekk ngay jox loolu mooy li wér léegi nag da nga gis teel boo xam la muy daj fa mu bokkut bu ko doon daj fi mu bokk am ngërëm te ku ne fa nga abonné wallahi asim bu buñ ñee promotion am na nga doon tigoo di xaar orange doo ci jot ku fii teg suñ koso gànnaar li ñu jox waa kër suñ koso gànnaar waxoon naa ko fi amat mel ni am na am na ko ci gis boppam te loolu mooy li ma gëm 77 daal ku yor 76 bokk bu ne promotion foofu la jëm nit nu muy bàyyee lam moom dem feneen di ko làng te bari na ñoo nit kenn xamul fu ñu bokk fi ne ci biir yoon wi lañ ñekk di wëndeelu dem ak ñëw koo wax mu ne waa daaru koy sa sëriñ nga ne waa daaru te jébbuloo ci kenn doo joxe addi doo siyaare ji ngay def sa bopp moo li ngay def ci sëñ bi genn jëf juñ la mandar mandar gaale amul xanaa xamoo ne pësiyëfub sëriñ wala baatinub sëriñ mi ngi feeñee ci pësiyëfub taalibe liy taal li ci sëñ bi pësiyëf koy waral barke tuxit baraj la tudd tuxit baraj da ngay bett sëñ bi ak lu rëy mu jël lu rëy jox la waaye yilam yilameeg maa ngi siyaare jeeg bu ma am na ko sax mën naa màggal sa du nuyu sëñ boo waxee nga ne xam nga sëñ koso waaw sëñ koso gànnaar nga naa ah borom jaale jobal waaw nga ne doomam mooy sama sëriñ kepp loolu du ak taalibe murit dañ ko teg léegi ci ay formule yoo xam ne ay dafa xaw a doy waal fii nga gis ku mën a xaaju sëñ bi jaral naa sama bakkan sëñ bi bu woote woonu guerre ma dee te day yërëb sëñ bi jëlal la jaay sa téléphone ngir teg ku sëñ bi jëral du portable bi la jaral ruu ak murit tegewul ci ay lóbee ki xalaat pas-pas bu dëgëral ci mayeen mag ñi lañ am ñii dañ daan cëppeelu cib teen wér jóg dem seen yoon ñii daan fàkku luñ am jaay ko ci yoonu yàlla jox ko sëñ bi ca muy dëgg maam Cerno joxe na bakkanam joxe joxe bakkanu doomam joxe bakkanu way juróom ngir doomi Sëriñ Tuubaa ñun bët bu set nga dégg ko ne sa bàyyi laa yaakaaroon dégg nga man man kii woon naa bu yàgg maanaam won na la le sa bàyyi laa yaakaar waaye am na kilifa sama benn xarit kilifa gu am fulla moo xam da ko baaxoo wax sa bàyyi laa gëm na nga maanaam di ko wax benn bis mu ko mu ne lam doon def def na ko ba noppi dem na maa fi ne kon bu ma la duyut seetal feneen waaye sonn naa ci sa baay laa yaakaaroon moom baayam daan na ko kooka baayam la wootu woon baayam wuutu baayam ma wuutu ko bu ma la ci doyut nag te dëgërloowu ma ñam wuutu woon kon seetal feneen loolu lépp da ngay dégg bëgg a démissionné ci yoon wi wala décroisé wu ci yoon wi ndax sa bopp baaxul CRS sëriñ jox ko junni sa bopp juróomi junni am gànna mesere bu ñëwee màggal suñu mën muxtaar day yor fukki junni nuyoo sëñ bi junni bu génnee ñu bakk jàmbar sëñ Mourou Muxtaar mu baatare sa bopp fukki junni sëñ bi junni ay nax képp la te bari na néew bu ne ci biir bàmmeel sëriñam di ko seere kersa nga ko waral ngir bokkee waaye jëfu ko ci kër gi la bokkoon nag jàmbaar la woon waaye foo ko def yow mi ci biir bàmmeel bi xam nga ne yaa ngi ci kersa xam nga ne li ñu lay waxal defoo te nañ xam ne liggéeyal sëñ bi ak jox ko sa alal nii ñu ko bëgg daq ci réew mi di ko wax sëñ bee ko digle wa gaayatu tawxiir waqir sayxaka wajaal sayluhu lahu xayraka waqdil xawaaija lahu ma asta bil basdi wal xidma gis nga jox sab sëriñ addiye ak di ko liggéeyal sëñ Tuubaa ko bu doon ab constitution ci ci ci yi tënk yoon wi ci la bokk mooy joxe sa ak di liggéeyal sëriñ bi mën ni su laa dimbale te branche li woo saa yoonee nit partagé ma lu mu lay wax activé wala defal nangam ku bëgg ñu partagé la nag li ci sëñ bi pour mu ñëw ci yow jëfa koy wone boo juree sëñ bi du xam ku la mën a jox saaku ceeb ngi tudde sa doom booy ngénte sëñ bi du yëg danga nga takk soxna ba takk keneen balaa sëñ bi xam ne am nga soxna jafe-jafe ci dugg nga ne ko sëñ bi ñaanal ma kër gi daa yëngu waaye ba muy neex sëñ bi yëgul sëñ Tuubaa nee na joxe sa bopp lépp la wax waxut wet gi bàyyi wet gi wala wet gi bàyyi wet gi loolu la nu sëñ Tuubaa diggal léegi nag ñuy nax te ki la bañ a fexe ba li nga war a topp doo ko topp ci moom ngay topp te doo ci jariñ bari na koy topp koo xam ne boo deewoon tey ñu ne na la jullee nga nga lànk kon bu bëggee dox sa diggante si sëriñ yaa ngi ci pertement maa ngi leen di baluwaq te di leen jéggalu sëñ Moustapha noo ngi sant sëñ Xaadim noo ngi lay ñaanal bu baax man de am naa sawarte ci di dajeeg yow ma la nuyoo léegi baat bi nga wax alhamdulilah gis nga sëñ bi nit ku ñàkk xorom yàlla na ci yàlla musal moo tax bi nga nee xorom nga ci ma sant yàlla soof même boo ko defee boo solee mbubb dañuy xam ne mbubb mii ko soofa ko sol dañuy xam ne mbubb mi baax na boo waxee dañuy xam ne ku soof maanaam yàlla na nu yàlla musal ci ak soof soof bari ku soof ku ne lu la xañ la nga am soofa la ko yóbbu waaw te nag sëñ mu daw balla day lu ku ko wuutu ci jataay te am noo ca moom sëñ Tuubaa maam ju baax ji am noo ca moom yàlla na nga ji tamit yiw moo gën ci ab taalibe fi ne bari na ku ne ca kaw te baatub kilifaa ko fa yóbbu bari na ko waaye di baatub kilifaa ko waaye di loo maanaam accam ak amut solo xam naa ñun ko wax ba nii bu ñu doon takkuk filifeer sax day dagg ndax amuñ solo ji sëñ ba wax ca ñoom waaye diw jàmbaar la ak diw nangam yoro sa bët di xool ñaata nit la sëñ mu daaw balla joxoñ ñoo xam ne ba mu ne nag ana sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni damay wax ne sëñ Modou Kara ku mel ni sëñ Modou Aw Balla bu ko assuré wutoon garanté ko maanaam amut benn guddi gu muy toog moom sëñ Modou Kara maanaam ak noyyeem war a noyyi tam war a jàll wërta rek xam fit bi mu am lim capable ni mu mel waaye ginnaaw nee na la bu ñu la suuboon ci gën di la dëbbi da nga mucc bu du àdduna bépp doon diir yor yi fetal duñ la jàpp te yow ku ne xam na ne ñaata yoon lañ diir sëñ Modou Kara ak i kënu sëñ Modou Kara amul bis bu ñu ko dëpput kënu laa la waxuma la ay fetal nii kënu la ñuy dëpp sëñ Modou Kara waaye ko waxoon loolu ndaaya na ko seex bu mag ngay doon seex bu mag ngay doon waaye bu mu la saf na la ak taalibe saf loolu sëñ Modou Kara moo wax ne ma sëñ bi moo ma wax na ma Modou de seex bu mag ngay doon waaye bu mu la saf na la ak taalibe saf loolu xoolal sëñ mu daw balla nam meloon ak ak lam def kon fexe ba am lu baax am na solo dama xam kilifa gu baax gu ab ma masa mere ay doomam lu tax moytu baax kilifa la gu mag ci yoon wi doom ji doom yi ne ci oto bi rek di kii safóor bi mere ko mere xale yi na leen baax na bu fekkee da nga leen seen bàyyi day dund rek ñax gu tooy dana wow xale yi jooy ñu wokk sëñ mu ne ko ah mu ne ko dana wow de waaye du la fekk ci ngoon googu la sa la safar boobu faatu ci ngoon googu alhamdulilah sëñ Moustapha mi li may jot ci sëñ Xaadim dana laa am bis muy wax ak sëñ Moustapha Habsa yàlla yàlla dolli ngërëmam ci mbirum sëñ Modou Kara na ko dama bëgg nga ñaanal ko mu ne ko sëñ Modou Kara suñ borom sëñ Modou Awa Balla noppi ci mbiram àdduna ak alaaxira ah sëñ Modou Kara ne sëñ Modou aw Balla nee na sëñ Modou Kara sëñ Modou Awa Balla noppi na ci mbiram àdduna ak alaaxira sëñ Xaadim ngi ne wax ko te tey mooy sëñ Modou Awa Balla kon nag xol bi mu am ci mën a jëf rek jafe na te bokk na ci li ma gën a neex ci jikko mooy du jëw mais sëñ Modou Kara boo ñëwee ne ko di wax na la danaan ah lool de moom loolu de moom Cheikh Gana wute naa ko cant waaye mënoo fexe ba tudd mu tudd ko wax ci safaan danaan la loolu de woote naa ko cant boo ko dikkee bëgg koo nett dara booy wax ba yàgg da lay dawyee ne moom loolu mooy jikko ju defaru xam nga am na ñu tànn ay nit di leen wutloo information ci seeni nawle ak seeni bokk ku ne ci dëkk bi xam nga ni mu demee boo bëggee naan si café faw ngeen information am na kilifa ko xam daa am ko ñëw na ko yëg nga ne eh, chrétien yi tey la ñuy war mu ne ko lu sama yoon mu bëgg a naan kafe tax mu ne ko sëñ diw de wàcc na léegi mu ne ko maa la ko jëkk yëg di nga xam ne fi ne information am na ñoo xam ne foo leen seen ñuy dem information te diggante sëriñ si moom ku ci wuti information ngir yàq diggante ñaari doj képp lay yàddi bi nen fi koo ci gis da ngay jekk-jekki laaj ko ñu ne gëj nañ koo gis wala def na nangam wala def nangam man du ci njabootu sëñ Tuubaa gi te war maa leen te jox leen seen i cër te ñaan yàlla yàggal leen suñu loolu rek mooy suñu njiglaay salaamaaleykum wa rahmatullah ko defee bokki jullit yi bokki taalibe yi ma bëgg kenn ku ci nekk fekk ko fii jox ko addiyee Serigne Touba addiyee borom Touba addiyee borom Darou Mouhty laa koy laajal waaw bismillah bismillah addiyee borom Darou Mouhty